si biir limametti point com comme ni ma koy defee semaine bu nekk ak ndaanaan li may dalal tey nag ñu ngi suñu biir émission limametti show xam ngeen ne semaine bu nekk ak ndaanaan li may dalal waaye comme man damay dox si jamono bés bu ne ak la cay xew <laughs> ay waay tey nag moom ma dalal koo xamante ne tabaarkàlla macha allah ka ka foori ka ka baa ngi nii borom jinne yi man dama ko xaw a ragal sax waaye xam nga comme pettaaw macha allah day pettaaw may pettaaw dañuy jàkkaarloo <laughs> muy soxna Daba Boye nekk fële si Safir FM soxna Daba maa ngi lay nuyu am mbégte lool bi nga ma accordé la ITV bi ñu fa yéene ànd ak yow. ndeysaan maa ngi lay nuyu ndey di la sant di la gërëm ngay xale bu baax bëgg li ngay def mën sa métier am sa talaa mu yàgg lool àdduna yëpp xam la macha allah kon soo ñëwee tey jii jàkkaarloog man fii ñu toog ci Sacré Cœur 3 dina ma neex torop waaye du muy nuyu sénégalais yi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi ndax vraiment danu ma bëgg danu ma doyloo danu ma safoo danu ma faale may nuyu tamit ki nga xam ne dañ maa gunge muy Ndella Madior Diouf yaayu Sara ak Moïses maa ngi koy nuyu ak euh, monsieur Touré waaye di nuyu Sista mi nga xam ne maa jàppale fu ma dugg mu dugg fa fu ma tourné mu tourné fa yàlla dogal tamit ñuy defandoo émission mu bëgg ma lool Mamadou ngi nii taxaw maa ngi koy bëggee di bëggee waa Safir FM yëpp di bëggee sama yaay samay rakk ndey di nuyu sa yaay ak say rakk bàyyiwuma kenn. Séga xam nga buñ na Daba Boye mooy jinne seet yi ndax man déjà accoutrement am day teg cheveux mu wàcce ma suuf man xaw ma xaw ma xaw ma jinne la xaw ma nu mu demee gis ngeen sañse bi nii macha allah kenn dootu ko présenté tudd nañ ko lamb barki dem mu toj fa waa kat booy daba booy ajaratu daba booy day xale boo xam ne dafa mujjee juddu waaye dafa yëngal jamono maa mujjee juddu ndey waaye dinaa tas jamono na xamalu tax heure laa doon xaar te samay rawaan dañu may dégte may wax barki yonent bi di ma yónnee phrase ma yox man ajaratu dama booy maay seetkat bu mag bi nga xam ne damaa ànd ak ginney sëñ fallu yëpp ànd ak ginney sëriñ Babacar yëpp ba pare ma gëm sëriñ fallu Mbakke sama yaakaaru tey ak ëllëg ma ne ko bàyyi bés ak baara maam it doon ak góor ga demoon Gabon jaar na wir wir dem na Mayombe dox na tund jeewal eh ma wëlbatiku nag di la wax ne la ah si Malick faaw ma ko ba crée gërëmaar aram loo kumba caam mbay bëgguma penda ak paate ma penda xar yàlla bopp coor baaba Babacar si dama koo bëgg lool ci sama xol ndax moo ne su ma rusul woon Maodo sama baay man Babacar ku ma woo ci foto mu wi ma ne ko si Malick yaa ngi koy def ak nga maa gunge. ah mais xam nga daba temps yi day def buzz macha sama cat ak sama catu morom dama booy jékki-jékki ni rek fël peut-être ñi dul woon a xam ne dañ koy jël en cours boo ñu mooy daba booy kañ nga commencé seet lan ngay wax ñi lay seetaan ci biir Web TV bi. 2011 laa commencé seet. di seet Sénégalais yu bëri xam nañ ma waa bitim réew xam nañ ma man bi may toj àdduna damaa nëbbatu benn télé gisuma benn rajo gisuma may toj diaspora bi am fa ay client ni client verre yu ma takk ñoo ma koy jox cheveux bu ma takk ñoo ma ko jox teraanga mbubb bu ma sol ñoo ma ko yónnee ñoo may wax soxna daba solul dem wan ne leen ba nga paree du tey tey rek taxul nga pare. daba moom seetul rek day def ñaan en même temps. damay def ñaan te du ma ñaanantu. yorumay màtt te du ma ma mënul dugg lu ma xamul duma ci dugg ndax jamonoy léegi gii su àdduna bi ku yaakaar ne yàlla tey ji day nelaw nax nga sa bopp sunu borom mu ngi fépp moo tax man ajartu daba lu ma munul duma ci dugg lu ma engagé maa ko mën bu ma la ñaanalee du def vingt quatre heures barki nontu bi du def vingt quatre heures balaa nga jot première séquence ngay tàkk deuxième séquence nga yuuxu ndax damay faj ci alxuraanu karim di faj ci sunguf di faj ci reen waaye gis nga man daw daf maa bëgg a jommal te xam man jomm yomb ma jomm jommal ma yombul ndax ni ma jàkkaarloo la bëri <laughs> mais dama booy xam nga Sénégal yi dañuy def ku jóg ne damay seet ku jóg ne seet ñu jékki-jékki gis benn soxna sox tudd soxna dama booy mu jékki-jékki ñëw def buzz tabarkàlla macha allah da nga bëgg a jaar si sa moroomu seetkat yi ñi nga xam ne sa yaay sa tante ñoom seet wala yow ak ñoom bokku leen man ak ñoom bokkuñu te du leen jëy ba nii man ndax sunu borom mooy bind te yemalewul man ajartu bind daba booy daf ma bind rek tegoon ma benn côté di xaar bés bi jot mu taal ma ma tàkk yàllaa ma taal nee naa la guddi ñu toll mbooloom ku nu téye mbaa nga ne ci ay xat-xat wala nga nekk ci ay jafe-jafe bi lay pétaaw bu yegg see ma saafara ko du def vingt quatre heures ñu joxew may dat nag. du ma joxe dale ndax dale yàlla gën bu nit waaye mën gëm naa ne sunu borom du gàntu sama ñaan ndax maa ngi toj senegal loo yëg ak loo yëgul waaye mënewu ma wax ji damaa bari sutura waaye du ma tudd ay tur. fi mu ne nii dawa ku nekk si ay xat-xat boo demee seeti dawa booy 24 heures nga génn sa kaso ba daba de suba lañ lay ranga ranga rang ndax su kaso bee ña nekk. mën naa ci dara rombaat ba mën ci dara ku mënta ñëw yónni sa mbokk bu fekkee ñi nga xam ne nag dañuy ay ponkal dañuy daal di jàkkaarloog man ñu gisante bët ak bët ñu wax la leen metti may dégg samay jinne di dégg ma yónnee samay jinne ñu tijji ko tijji naa kaso Amérique hmm? tee nañ fa ay xale yu bari seeni ndey lañu ñu kidnappé seeni doom ñu wal ma seen bopp barke xadimul xadim ma génn leen ci kaso boobu maintes fois ñu ngi may dégg du waxantu daw naa safa daw marwa tawaaf naa kaaba gi ñëw toog teraanga yi àdduna jaraluma dama pare démb tey doog di ñëw barki Serigne Saliou xoolal li ma sañ sañse non daba li nga sañ moom ëpp na si seetkat daba yéen seet mi am na xaalis de waaw seet bi boo amee xaalis day fekk ngay def dëgg soo nekkee ci seet gi doon di waxkatu dëgg mën nga ci am lu ne waaye soo yoree say màttu di door loo ñàkk yaa ko xañ sa bopp ba xam nga li nga waxo ju am solo da nga ne senegal dafa beuri ño xamantene dañu jënd jënd lu ay rab jékki-jékki bëgg doon am seet te doon ñu ko fenn daba bu ñuy wax mom dafa doon seet wala waaw man dama judd sama mam man seet sama yaay man seet sama mamati man mom seet wëruma ñu jangal man nag xawma won jottu sax ñu may jangal waye dama tedd bu guddi rap fekk ma fama tok daal di may jox seet ci tefesu geej motax mané la lak daarooy sama mam su ma la ko waxee war nga koo gëm njarey sama maam su ma la ko war nga koo gëm kumba lambaayey sama maam ndax sama ndong tëngéej la waddee maa doo tëngéej yaroo tëngéej fekk mbaax tëngéej waaye dama ne su ma la nee lak daaru mooy sama maam war nga koo gëm ndax xamal tax waru may rab di ko taf tafal sama bopp ndax man aji daba boy xam naa bis rab bis rab dafa metti raba ma bëggal boppam ma ne ko dëju leen ma liggéey daal leen di teral waaye ku ma engagé na ngeen def mu doon dëgg loolu la waral lu ma engagé. kon yow da ngay waxantee garab yi ak jinne yi di leen wax loo def leen li ñu def loolu. damay wax ak ñoom sànq ba léegi maa ngi naan leen nday moo ma invité ñu ne ma waa ma ne ko bu dara yàqu na lépp baax teg leen ko mu toog te bu mu yàkkamte mal batuku ne ko dama bëgg Sénégal gii ma gis muy tàkk te rab yi xiif war a lekk rab yi xiif war a mer gis nga accident bi am bërki Dembo Ndiaye. ni mu toll ak li mu yëngalee àdduna rab yi dafa am heure boo xam ne bu nu xiifee war a rekk te ñu dañuy yëngal dëkk bi sok yu bëri yoo fii gis dañu koy tuddee sunu borom waaye bi laa yërmande yàlla rekk fa jaar pour mu sedd waaye rab yi ñoo koy fabriqué ñoom ñoo koy def ndax dañuy jéggi dañuy jàll. dañuy doxantu dañuy dugg ci oto yi kon ni nit ñi di def léegi bu fekkee ñuy génn nga bëgg leen a fen dañuy fen oto yi mu daanu looloo waral nag damaa bëgg réew mi borom réew mi bu bëggee réew mi di ñëw 2019 na ma seet se ci kàttanu yàlla ma delloo ko réew mi ak keneen ku bëgg réew mi bëgg falu na ma seet se ma teg la réew mi ci sa loxo. dama kon da ngay fal di folli man damay fal di folli barke yonantu yàlla Muhammad damay fal damay folli ma ànd ak rabbi samaawaati war ar bi jàll jëlaaloo lu ma ko sant mu defal ma ko te du mat 24 heures man seetuma rek pour taxaw fee bi may xale aw ma 30 laa dem bay tilaay nit yor na téeméeri million doo xool rasulillaahi damaa set wicc du ma mooy yàlla te du ma fo ñi ci sama ginnaaw nag sóoraale wu ma leen ndax ku fi baax bëri noonu te ku bëgg siiw barke yonent bi yàlla Muhammad di nga dégg ay coow di nga dégg ay wax ju ñaaw ju ne waaye man moom sama fu laa ko teg ku jaaxle rek na ma. tur péage bi yow ni ma la déggee accident yi fi am barki démb bu suñu naataango boobu génn si àdduna Papis Mballo lu ci ëpp rab lay doon. li ci ëpp rab lay doon sunu borom a ci wis ndox mu sedd rek mu daal di rafet waaye rab a koy faral di def ndax bu nu dëkkee ci bërëb di génn di doxantu walla di jéggi su oto ñëwee ak ci fond bi muy ñëwee dañu koy fel te bu nu ko fëlee day daanu moo waral milliers yi nga xam ne ay rab dañ fa tëdd tëdd bari na ndakaaru fii bari na mesure parti yu bari yoo xam ne ay rab ñoo fa tëdd kenn teralu leen léegi dañuy rajaxe rek mooy li ma waxoon rek équipe nationale dafa bàyyi rab bi fii te teralu ko te ñu koy teral xamuñu yoonu teral bi mën na noo rey lu ne def lu ne waaye bu nu xamul yoon bi ak fa rab bi bëggee la ñuy bëgg day dëgër te man fii laa bokk Sénégal laa gëm sama frère Sénégal la samay rakk Sénégal lañ ne waaye nanu ma dénk équipe bi waaye ci kàttan yàlla ma jox leen ko. xam nga daba nag comme sama émission bi dama métti show ma naar naar yaa ngi. comme ne nga yaay kat bi def buzz yaay kat bi toj senegal ñent ni deg la bëgg nga setal ma tan ji ndax ñew na wala ñewul parce que man mom tungu na du teew ñuy woon nataal setal setal ma deg ana si sado tan ji ñew na ana si sado ay jakkoon senegal tay mu neex tay tay lima metti melni télé tay lima metti melni dom ndey petaaw wa ci bopam set sele wa wa yem len bal du tàkk fitol du jog ndey bu ma neexee ma tébé jeen bi wax sama soxla wa kàttanu yàlla su ma neexee ma yëngal. waaw wax sama soxla. léegi élection 2019 yi ñëw. laa bëgg nga seetal ma ko ndax dina am violence wala du am violence. ndax dina am violence wala du am. waaw 2019 yi ñu jub si. nday kii ku ko gis xam ne loxo golo la. ah. loxo golo la loxo kay man de maa ngi doo gis loxo golo. loxo golo la. maa ngi ah! yëngu di ci di ci def. man petta waaru naa damay wax. waaw. nday su ma sampee béjjén damay wax. waaw. mu ngi nii taxaw nday pitaar naam li nga may laaj ci élection bi danaa ci xool te danaa la ci wax dama ne bu nu bañee réew mi tàkk te réew mi am dal ki jiite réew mi te bëgg lu baax jiite réew mi te bëgg Sénégal na ñëw ma seral Sénégal yi na ñëw ma seral réew mi Sénégal yëpp ànd ak dal ci kàttanu yàlla bu nu ko defut dana tàng de nday bu nu ko defut dana tàng te dana metti mu ngi nii taxaw troisièmement ma dellu di ko wax ne réew mi élection yi jëm du yomb torop ndax ku ne da ngay wut victoire waaye dama ne waxal borom réew mi mu set sedd ma ma seddal réew mi mu sedd bal du tàkk fital du jog eh ma taal leen ñu tàkk ki war a gañe ma jox ko victoire am ndax nee naa la du ma ay fo du ma ay caaxaan maay borom jinne yi maay borom jinne yi élection yi ñu jëm ci kattanu yàlla bu nu ko ñimee nanu ma seet see nee naa leen damaa regg démb tey doog di ñëw teraa ngay àdduna taxumaa jog sol naa lu ne takk naa lu ne ba pare waaye dama ne élection yi day tàng jër deret dina tuuru réew mi dina yëngu nañu egg si ma neexal maam yi ak borom dëkk bi e ndakaaru dafa am borom. dem seet bi mooy dama bëgg nga seetal Khalifa Sall. Khalifa Sall. waaw jafe-jafe yi mu nekk. d'accord <laughs> wax nga lu xam nga lu tax wax nga lu doy waar xalifa na ma seet see ñu tijji ko. dama bàyyi li ngay wax. <laughs> dumay nettali te wax baaxul xalifa Sall. jëlal dossier yi nga tas ko mu ñëw nee ko. na ma seet man ajartu dama booy ñu gàddu ma yóbbu ma fa mu ne. ma toog mu toog xalifa wax may dégg. samay jinne di dégg léegi ñu yëngal ay kayitam ku ko tee doo ko fekkee. <laughs> na ma xalifa seet sama génn ko. Sénégal dañ jommi ñu ngi mars lu ne ñu ngi koy def affaire bi dëgër na këcc na ma xalifa seet see barki yonentu yàlla Mohamed ñu génne ko. ñu wax daba si nga xamante ne réew mi jamono yi ñu toll jafe-jafe yi xale yi ñuy sàcc di rey di dagg seen ay awra di dagg seen ay nopp ak yooyu yëpp pour yow lan moo koy def ñooñu tamit rab yi moo indi xiirtal wala. déedéet ay xeetu sacrifice la. teraangay àdduna moo leen ñor alal moo leen ñor gëm yàlla gi dafee suuxe am na ci ñu bari ñoo xam ne fañ waroon a teg mbirum yàlla dañ ko fa tegul xaalis lañuy laayif alal lañu ñu gëm léegi dañuy def loolu pour def ay xeetu sacrifice pour mën a am looloo waral nga dégg li fii riir looloo waral nga dégg réew mi tàng jër waaye dañ ko war a éviter ndax ba kenn dafa foor te yàlla rek a war a rey yàlla nag nit bi toog di rey yaakaar ne yàlla mënu koo rey mu ngi nax boppam rey ba fa mu nekk dee rek ku koy gënal mbaa sax bu ko gisee mën na koo rey sur la saa waaye xam nga yàlla yàkkamtiwul dara daa toog rek di xaar moo tax ku ci teg ne yàlla amut mbaa yàlla exigé wul wala yàlla ji day nelaw yaa ngi nax sa bopp sunu boroom dafa mën a xaar moo tax bu jógee di la teg nattu danga naan la laa ko def. kon jeex na dégg ngeen ko nee naa leen seetkat bi nga xamante ne moo njëkk mu mujjee juddu ñëw di lëmbe réew mi. waaw mujjee juddu ba pare. barki Serigne Touba Mbakke ñëw di toj Sénégal nee naa ko dama koy wàccee gars yi teg na première la ma yégalaat ko ba ci kaw te kenn du ko dindi. nee naa la yow mi téye sa gàllaaj di ko jëmmale ci soxna Daba buy bu la fa sunu borom fekkee da ngay faatu ndax xam lu tax dama ànd ak yàlla ba pare mu boole maak ay ñoo xam ne moo leen bind muy jinne yi. te fu naa ko da ngaa gis ñu lay weddi Daba. Ah, ku ma weddi sax sa bopp ndax yonoon tubee gënoon baax ñëpp te ba mu wootee woote bi dañ koo weddi jam ñi moom ci weddi mënut a ñàkk ndax rasulillah yi ñi ko doon fexeel ak ñi ko doon waajal ñii ñëpp ay mbokkam lañ rawatina sax ñenn ñi ay nijaayam lañ moo tax mu gàddaay jóge màkk ba dem tëdd Medinatul Munawwara. aja dégg ngeen ko noonu moom soxna Daba Boye la ñu daloo nee naa leen Kanfoori Kankan baa ngi nii moom noonu la koy waxee kon di leen dox dox daje semaine bii ñëw <laughs> ak keneen ku may dalalaat rek li ma métti si na. <laughs>